mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen nuyu fi ñu leen baaxoo nuyoo ci seen site Baol Média Baol Média info dina ma ànd ak yéen waxtaan bu am solo euh, ci seen fajum cosaan tey ñu nara daloo nama waxtaan ak moom ngir yaatal ngir laay biir askan wi muy sëriñ maam Cheikh Ndiaye jaamu sëriñ fàllu moom lañ nar a waxtaanal Cheikh ak moom jotaay bi ci wàllum fajum cosaan. bu ne sëriñ maam Cheikh Ndiaye nag xel yëpp dana dem ci sëriñ Arsane Ndiaye góor yàlla nekk waajuram bu góor kon yaakaar naa ni kooku moom la ñu nam ma seqal waxtaan wi tey ngir yaatal ngir laay biir leen li nga xam ni mooy jàngoro ji dab askan wi ak lenn ci tawat ji nga xam ni askan wi dañ koy daaguwaale wala sax mu tëral leen sëriñ maam Cheikh Ndiaye góor yàlla jaamu Serigne Saliou jaamu Serigne Fallou moom lañ ci nam ma waxtaanal Cheikh ko ak moom jotaay bi Serigne Mame Cheikh yaa ngi en direct ci seen site Baol Média info euh, tey nga nuyoo ko ak euh, ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel site bi ñu daal di dugg ci li nga xam ne moo di waxtaan yi. aouzu billahi min asaytaan rajimi bismillahi rahmaani rahim laa ilaha illa allahu sayyiduna muhammadun rasulullahi barkeb sëñ Bamba doolay Cheikh Ibrahima Fall Kiram ak sëñ Fallu bi barakatil Cheikh Saalih Mbàkke mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyoo nuyoob jullit nuyoob taalibe nuyoob murit muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp tey baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp tey sant ñëpp di leen jaajëfal comme neen ko waxe fas yéene fee teew inchaa allahu rabbi leeral as xam-xam sunu sun borom subhaanahu wa taala baaxee ñu fas yéene ko seq ñun ak askan yu muy njëriñ suñu diggante ak ñoom si biir réew ak bitim réew incha allah baaxu Cheikh Saliou Mbacké daje day am solo nuyoo bi matale na sëriñ maam Cheikh Ndiaye euh, jaamu sëriñ Fallou bu Touba ñaari pono sëriñ maam Cheikh ana la mën a dugal ci li nga xam ni moo di tey faj mi. wax jërëjëf sëñ bi ñoo ngi siyaaraat bu baax a baax loolu am na solo lool waaw maanaam faj mi nag moom xam naa ne euh, ni nin koy waxee mooy sun borom subhanahu wa mi mii def di dindi moo na si moo na ko booleel. ndax dañ koo nàmp su ñaari côté yépp di wàllu waajur wu jigéen di wàllu waajur wu góor di Cheikh Alassane Ndiaye góor yàlla yàlla mi dara tawut dafa dogal bin jàng jee alxuraan ba ñëw mu joxoon ñu Cheikh yi bu Mbàkke yàlla mii def tawféex dimbali nu mu daral ñu alxuraan ñu bàyyi ko fa mu yóbbu ñu kër Cheikh Ibrahima Fall ñu takk la bi mu ñu joxee Cheikh Saalihu Mbàkke ban ñëw ah lanu xamal ne nag li fi nekk doom nga waaye mayewut day jaay ñu takk suñu laxasaay di ko tarbiyee di gëstu ci moom xam-xam ba yàlla mi dara tawut dogal mu jox ñu ndigal ñu fas ne ko yaatal boobaak léegi nag at yu bëree bëri la macha allah waaye bi bi loolu amee it wax dëgg yàlla gëstu nan ci ay réew yu bëree bëree bëri yu bokkut ngir dolli suñu xam-xam ngir nit bu yàlla dogalee ngay boroom jom am looy bañ boo xasee ba sóobu ci mbir da nga ko war a jox xam bu baax a baax a baax ngir ëllëg incha allahu rabbi waaw kay daal dinay am solo xam naa nag euh, li na ma waxtaane sax xaju ci benn émission waaye dañ ci jukki lenn ci ay ponk yoo xam ni yu utile askan rek su ko defee moom lañu nam ma faram fàcce waxtaane ko li ci doole mooy néegu sëy ak rab ak hémorroïde ak li nga xam ne moo di siti ak cat ak euh, xeeti bayra yi ak euh, dugg xalwa mu nekk lu jafe ci jamono ju téeméer ak ubbiku ak li nga xam ni moo di nopp yooyu yëpp danañ ko waxtaanee tey ndax xam naa rek dañu daal ci eh, jukki yenn ci ponk yooyu rek daal di ciy ñëw waxtaanee ci ak ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel Baol Média info sëriñ eh, maam Cheikh Ndiaye tey dañu njëkkee ci li nga xam ne mooy néegu sëy nit ñaare mu bëgg nit ñu ne ko du sa nawle wala du sa xeet ak néegi sëy rëg-rëg yi am ci biir waaw jërëjëf dugg nga ponk bu am solo te it ponk boobu damay neex lool ndax li tax mooy wax dëgg yàlla dan ñu koy jàmbat lu bëree bare bëri looloo waral gën a yokk tax ñu fas yéene see def ay leeral incha allah biir réew mi ak bitim réew dan ñu koy jàmbat ndax xam nga ndeysaan léegi-léegi nga gis koo xamante ne day nekk fenn di sëy ba dara doon woon dara dem ba mu yàgg yàlla suñu borom dogal ah, ah borom kër bi wan ko ginnaaw moom ku jigéen ki boroom këram wan ko ginnaaw nga xamante ne nii lam daan am si moom mënatu koo am nam ko bëggee woon tamit ameetu ko noona mm-hmm. loolu nag dafa bëri ay façon yoo xamante ne nii mat naa teey am na loo xam ne tayeef lay doon am na loo xam ne rab lay doon am na loo xamante ne du nekk tayeef maanaam dëddale lay doon ndax fii Sénégal la ndax li ñuy wax lu fu leer nañ ko teg am si ay preuve leer nañ bu fekkente ne koo xamante ne lii sib tënk euh, borom këram da ko won ginnaaw bu soobee yàlla buñ ko xoolee ba xam ne lii du jukkoom wala du ay defoom ndax wax day leer mhm. ah bu soobee yàlla buñ gisee maa ñu déggoo fu mu mën di ne dinañ ko si dimbali ba borom kër bi jaxasoo ak moom wan ko kanam ba noppi taxawu ko teg ko fa mu ko war a teg te incha allahu rabbi lu dëgër lu leer nañ lay doon ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu fekkente ne nii koo xam ne nii it naka noonu lu tourné la nga xam ne da ngay am soxna waaye mu jubu la mu dem ba ci biir jubootu la la nga bëgg ci moom amatoo ko ah, na nga ko bëggee woon it amoo ko benn yoon ah bu boobaa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu fekkente ne lu leer la wax ju leer la. dinañ la dimbali ba sa soxna du gis kenn ku dul yow du bëgg kenn ku dul yow te dina la nangul te loolu jàpp naa mooy may doom ju baax insha allahu rabbi nga xamante ne nii bëri na bëri goo xamante ne nii kenn mënut a nekk sax daanaka di ko lim am na ñoo xam ne nii it ba léegi ñu baal ma da ngay gis góor goo xamante ne nii euh, day bëgg jigéen comme ni nga ko waxee ci laaj bu njëkk bi mm-hmm. ah moom it mu bëgg ko lool yàlla dogal ñu ne ko ah, yowkat kii du sa xeet kii kat ñeeño la wala kii kat ab géwél la wala kii kat ab tëgg la wala kii kat géer la tey wallahi al asim ñoo ñu koy wax ah xaj na cosaan moo tax ñuy wax waaye amut fenn fu ko alxuraan indi wala addis indi ko loolu kenn ku ne xam na loolu te it ñaare euh, lu mel noonu am naa si ay cas yu nga xamante ne dama leen di ñaanal dañ koy bañ dema dem ba ñu baal ma si waxin wi doom sosu si jàpp naa ne nag bañ loo xamante ne nii euh, da ngay bëgg lu neex nit ba far def loo xamante ne neexut suñu borom ah Euh, si xel mu gàtt rek boo xoolaatee tuuti da ngay xam ne lii du ko jar ndax it ñoom ñaar bëggante nan mm-hmm. jullit la mën na koo yor kon maye leen ñu mel noonu nag boo ma bu ma leen gisee si kàttanu yàlla ak mbaaxam si kàttanu yàlla ak mbaaxam ndax li ñuy def alxuraan la ak turu yàlla dañ lay dimbali bañ a bañoon nangu tayit loolu dina am insha allahu rabbi loolu am na beneen ponk rek ñu jeexal am na ñoo xam ne nii it dañuy bëggante ak jigéen waxuma nag ñoo xam ne dañuy bëggante ngir fopp ndax wax day leer ay taalibe leen yaakaar Sëriñ Tuubaa ak Rafal duñ def lenn loo xam ne lislaam bëgg ko ñu déglu bu baax a baax a baax koo xamante ne nii yàlla mi dara tawut dafa dogal nga bëgg jigéen fas yéene woo ànd moom di caaxaan di def ci moom lu ne demut ba desul lu def farata mu dumbooyu la wan la ginnaaw fas yéene laa war boo ñëwee dinaa la dimbali bu dee jigéen dinaa ko dimbili ci góor ga bu dee góor dinaa ko dimbali ci jigéen ga waxuma nag ñoo xam ne dañ leen di jàppal jigéen ñuy ànd di fo kun koy defal lu leer naññ lay doon fu wér fu leer naññ lan koy teg ndax yooyu li muy am day bëri léegi-léegi nga gis tamit lii waral léegi-léegi ñuy dëddale te ku xam ne ah kilifa de du dëddale wala koo xamante ne tudd na boppam jullit du dëddale loolu ak mu njuumte la ndax dangay gis koo xamante ne ni day liggéey lu jigéen ba jigéen nga topp ko muy ànd ak moom di caaxaan te bëgg ko soxna bugg ko ngir lenn wala jigéen nga koom-koom ba mu am mu ànd ak moom lekk ko ba mu set ku mel noonu nag bu ko ay mbokkam xamee te te nekk nit ñu nit ñu dëggu te teg ko fu leer naññ bu ñëwee nañ leen dëddale wala koo xam ne dafa topp jigéen maa jigéen topp góor te góor googu fas yéene koo fowe yooyu it ay dëdd la si daal di jaadu. Mhm. voilà yooyu yooyu daal si tënk daal euh, mu nees na koo leeral noonu incha allah. xam naa laataa ñuy génn ci ponk négocié yi ndax léeg-léeg du jafe-jafe comme góor néew kattan. Mhm. tax soxnaa woon ko ginnaaw wala ba mu yaakaar jëm amoon ci moom mu tax mu deñ yu demee noonu daal ba tax mu indi ak féewaloo seen diggante. waa xam nga laaj nga laaj bu am solo xam nga ñaari ay ñaari nit bu ñu gisee ba bëggante. dund dund dund at yu bëri wala weer yu bëri. ndax du dox ndax du añ baag reer ba kese am na leneen lu ci laxasu. waaw loolu am solo si laa jëm xam tey ji ñaari nit bu leen yàlla boolee ñu dund ay weer maa ñu dund ay at yàlla dogal ñu bëggante kenn bañalul lenn sa morom bu ñu demee dama dem ba kenn di ko wan ginnaaw moroom ja rek mat naa teey ponk yu ko mën a waral bëri na nga baal ma am na ñoo xam dañuy wor lan lan foogoon euh, muy wàllu koom-koom buñ ko gisatut mun na noo wane ginnaaw. Mhm. am na ñoo xam ne nii it wax naa la ko si njëlbéen ga. lu tayeef am na ñoo xam ne seen i raw xaan dañuy dañuy desee ànd. Mhm. am na ñoo xam ne rab moo leen koy def am na ñoo xam ne dëdd la lay doon. Mhm. mais am na ñoo xam ne nii it munees naa nekk néew doole. lan soxla woon seen boroom kër amatuñ ko. bu boobaa ëpp naa coow da ngay jaar si yoon woo xamante ne nii bu dee rab la ñun si kàttanu yàlla nga baaxam da koy dind ci suur bi. bu fekkente ne feebar la nag wax dëgg lees di traité lay doon. mën nañ laa jox loo xam ne nii di nga yëg sa bopp waaye lu tax nga bàyyi ko da nga koy topp ba traitement bi mat ndax wax day leer. yooyu yëpp da ciy am waaye euh, lu nuy tënk la rek nit ki moom bu ñëwee wax la consultation bi nga koy def comme bu fekkee man la laaj la ak tontu si biir laaj beeg tontu bi nag si ngay mën a xam ba xam kii nekkate lii moo waral li yoon bii nga mën a jaar ba mun koo saafaraal li ñu bëgg bu dee rab la dañ koy faj ci bis bi mais bu dee tamit feebar la dañ koy traité nga jël traitement yi moom euh, Serigne Mame Cheikh Ndiaye jaamu Serigne Fallou euh, moo wax loolu fii ci Touba euh, ñaari pono la féete Serigne Mame Cheikh dañuy porox ndollu njëkkante ak waxtu yi dugg ci wàllu rab tey boo doon leeral rab lan la ak rab lu def ci doomu aadama bi. waaw rab nag dafa nekk loo xamante ne lu yàgg la suñ maam Cheikh Ndiaye jaamu suñ fàllu moo ko wax du keneen moo ko wax mhm. du kilifa diinaa ko wax yàlla suñu borom ñu bind alxuraan moo moo tudd rab mhm. moo tudd rab ci alxuraan maanaam rab nag xam nga olof mooy wax rab waaye arab jinne lay wax suñ borom moo bind sooratul jinne lu mel ni xul oohiya ilayya ana xustamaxa nafaru minal jinne suñ borom tuddal na ko boppam kon loolu lu am la kon loolu lu nekk la rab nag dafa bëri ay façon faru rab dafa am coru rab dafa am rabu mbir filin dafa am yooyu si tënk benn bu na ma mun laa leeral ni muy def ba kum dal xam ne lii moo ma dal. ñoom ñooñu nag li ñuy yàq bëri na bëri goo xamante ne nit mënut a toog sax dëgg-dëgg faram fàcce ko. bu ko defee faru rab boo ko déggee jigéen moo koy am. coru rab góor moo koy am. rabu mbir filin nag bawut jigéen bawut góor. waaye benn bu si nekk dafa am nu muy manifesté woo si nit ki ba bu ko nit ki dalee mu mën a xam ne nekkate man rab bii laa àndal te it ñoom danoo ëppante ay doole tey mun ngaa wax lu mel ni rab rawxaan xuddaam ak jine si mhm. euh, tënk euh, mën nga ne ab sëriñ aku bëkk nekk ak ay taalibeem ak i ndongaam lu mel ni jine ji mooy sëriñ bi waaye rawxaan bi mooy bëkk néeg yi xuddaam bi mooy taalibe yi nga xamante ne ñoo mag sës si moom rab yi mooy taalibe nga xamante ne ñu ndaw lan si gàttal mhm. boroom xam-xam yi gëstu wàllu yooyu may wax dinañ xam li may wax boo ko defee jigéen gi amee faru rab da koy géntloo di sëyi da koy merloo day toog yaram yi di diis bopp bi di tàng muy faral di naqari deret di jaxasoo mhm. mun li koy bëgg mën nay bëri waaye fu nu demee ba desul lu du def farata la koy yàq mun ta wax lii la moom it pour mu bëgg day jafe mun naa gis nit mu neex ko léegi waaye diir bu gàtt mun na koo soof te du wax ne lii la ma def ba soof ma mhm. ni muy dalee ku góor ki noonu lay dale ku jigéen ki bu dee coru rab la it ku góor ki day gént di sëy mhm. day wéet di fowe boppam ñu baal ma si waxin ndax wax day leer bay àgg fenn fi bu ko defee bu boobaa nag day am ak ricc gu muy am si boppam nga xamante ne loolu du bëgg jigéen moo àgg foofu si moom mais li mu àndal moo koy defloo. Mhm. dina dem a dem ba dellool awraam mu tuuti. Mhm. dina dem a dem a dem ba koy géntuloo muy sëy man yi moom di génn te ñi jàng te gëstu xam-xam xam nañ ne rab moom bu la géntuloo ngay sëy wala nga fooy sa bopp ba sa màndiw génn day mel ni nga am sa soxna ànd ak moom ba 40 fois benn daanu boo daanu si rab. kon xam nga ne kum yàgg dal bu yàggee mun naa dem ba tëlaloo la spécial. ki muy tëlaloo nag mooy ki nga xam ne bu wéetee yëg boppam waaye bu toogoon ak jigéen bu fekkee soxnaam la comme nin ko mën a tënkee. Mhm. balaa Moussa àgg kanamam day wàcc kooku rab moo ko jàpp. nga xamante ne bëri na nu muy def rabu mbir fi leen sib gàttal moom mooy ñi nga xamante ne dañuy jékki-jékki lu mel ni crise dikkal leen ñu jékki-jékki yooxu génn yooxu daanu wéqu mhm. di génn lu mel ni ay yóot wala ñu tufli nga xam ne bu nelewee ba noppi boo leen waxeen yow mii kat da ngaa daanu woon mun nan koo weddi ndax la leen di dugg day mel ni doos bu leen di ëpp doole ba dañuy jékki-jékki yooxu diggante booba it doole ju yaatu la ñuy àndal loolu loolu rabu mbir filin moo koy def mhm. màggatu saaru jine la joo xamante ne si famille jine kayaafi la bokk fa la bàyyi ko mhm. loolu it lu nuy saafara lay doon mais dina ànd ak ay sarax lu nuy saafara lay doon si kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mhm. yii yëpp ñu la wax yàlla dogal na ba gëstu jotee gëstu nañ ko. Mhm. ba xam jotee it yàlla xamal nañu ko ñu teg ko fi wér di ko def incha allah. daajale am solo kon yéen ñi doog a dàpp euh, ci seen site Baol Média info ñu dalal tey sëriñ maam Cheikh Ndiaye jaamu sëriñ Fallou ngeen mën koo jot yii la numéro téléphone ci 77 732 25 25 77 732. 25 25 wala 76 287 76 38 76 287 66 38 yooyu mooy numéro yi sëriñ maam Cheikh Ndiaye à euh, jaamu sëriñ Fallou Mbacké fii ci Touba ñaari pono sëriñ maam Cheikh dañu dugg ci lu sonal askan wi léegi muy hémorroïde hémorroïde lekk gi la wala hémorroïde day dabe wala hémorroïde nan lay manifester ci nit ki tey nan lay yoote nit ki ba keroog mu di ko jàpp ak lan mooy hémorroïde. waa wax nga wax ju am solo hémorroïde boo ko déggee tubaab moo wax hémorroïde externe interne. Mhm. mais olof ak ñun li ñu jàngal piccu kajoor la tudd. piccu mhm. kajoor ak jàngoroy nag bokkut. ëpp nay jaawale euh, bu ko defee émorite bi génn ak bi ak bi génnut bi nekk ci biir sib gàttal picc lay doon bu nekk ci biir butit bu yàggee ba nga xam ne toog ji sonal na la mooy waral mu génn def lu mel ni picc léegi-léegi mu lay seera bay nàcc am na ñoo xamante ne nii it ñu baal ñu dan koy am bu buñ amee doom doom ja am émorite mooy émorite bi nga xam ne nit da koy judduwaale léegi-léegi nga gis gone lu mel ni tout tànk mhm. bu demee ginnaaw kër suufam day génn ba dañ koy dugalaat mhm. xeetu émorite yooyu am na am na voilà loolu nag li koy indi sitti lay doon amut kenn ko am émorite te amut tawatu sitti amut sitti voilà mhm. mooy li nga xamante ne nii sa biir day jooy da ngay seere da ngay lekk mu yéex a rees mun ngaa dem ba boo demee ginnaaw kër deret di génn boo làmmee si suuf mu mel lu def ay saaru weenu bëy yu ndaw yu soo a génn am na yoo xamante ne ni it yàlla dogal na du muy du muy génn boo lekkee day yéex a rees da ngay am ay toj njàpp yu bari loo def da ngay sonn voilà ay ballottement yu doy war yoo xamante ne mun naa dem sax bay sadd sa tànk yi wala muy metti sa ndigg li mun naa demee tamit boo émorite jural la mobis alen nga xamante ne day xaw a dend ak ulde te lu nekk ulde boo xaxtu ni ko day am xet te mun naa sonn booy wax tamit day am xet maanaam ngir mi ngu xeeñ loolu émorite da koy sabab mais yooyu yëpp yàlla mi dara tawut dogal na ne yor nan si lu leer nañ loo xamante ne ni li ñuy wax it bëgg nit ñi xam ne dañ lenoo dugalun si danoo judd fekk suñu kër bàyyi ñu nàmpatal ñu si mu nekk suñu biir deret li ñuy def amuñu lu moom teg nan ko fan ko war a teg woosu nit ñi tàllal leen ci loxo pour fas yéene képp ku ko am yàlla suñu borom dogal ñu jëflanteeg yow mu a saafaraw yooyu yëpp lu ñuy saafara la ci kàttanu yàlla ak mbaaxam siti mun nan see dugg leeral ko. siti waaw ndax cité ak émurit xam naa ne bu ñu soree du loolu wala déet. voilà cité ak émurit ñoo bokk ndey te bokk ñu bàyyi. Mhm. ndax dama ne la képp ko amee émurit amee nga siti siti nag toppum siti lan koy wax waaye lu yàq la toppum sët la tudd. mag ñi ñoo ko daan wax toppum sët. toppum sët. voilà mm, kon ci maam lañ koy doonoo daal. si maam lañ koy doonoo. Mm-hmm. bàyyi da koy am nga juddu am ko wala yaay am ko nga judd am ko lu fi yàgg la. tawat la boo xam ne daf xaj ne dafa def dafa dem ba siiw te doomu aadama ñaare lum mu yàgg dégg day dem a dem a dem ba jàpp ne lii doonatul dara waaye tawat bu doy waar la. siti ray sax da koy def. waaw moom sit li ma lay wax lu lu leer naññ la. léegi-léegi nit lu doy waar dal ko ci yaramam fu mu fay dugg di faju te garabu siti dëgg bu ko jëloon mu tàggoo ak moom mu laxan insha allah mi ngi mel ni si gàttal nit koo xamante ne day sangu pour bëgg a tijjeeku di sangu pour bëgg a ubbeeku sangat bu mu jël ko kenn ku ne mu dem fa te macha la mboon a gis dëgg dëgg gis ko fekk na cat moo jiitu si yaramam ba yàqal ko loo xamante ne li fekk cat ba setut mbaa rab ànd ak moom di ko yàqal li noonu la siti di làqoo si yaramu doomu aadama ba fu ne mu dugg fa te lam bëgg si yar ak wéram dëgg dëgg du ko mën a am. siti yan melokaan lay indi ci nit ki tànk yi day xar wala day lakk wala déet. siti moom siti. waaw siti xam nga dama la wax ne moom. picc kajoor. ak jàngoroy kajoor. ay wax la. suñu mbokki saalum saalum yi naan koli. voilà picc kajoor mooy li nga xam ne ay picc lay def. sa bët mënu koo gis. voilà noonu la ko olof tuddee mag ñi daan ko tudde voilà jàngooy kajoor nag xam nga kajoor des fa yàgg fale buur toogaay bu yàgg beeg yooyu mag ñi ñi gëstu xam-xam te xam ko nee nan fan njëkk sosoo ñu jékki-jékki rek gis koo xam ne suuf gi day seere ba noppi di génn lu mel ni deret ñu ne diw dafa am piccu kajoor képp ko amati ñu ne picc kajoor waaye jàpp naa léegi dépassé na kajoor kon mën nanoo wax lu mel ni ay cité ak yu demee noonu mm-hmm. voilà waaye ay xeetu cité ak émorite ak yooyu yëpp rek Euh, tubaab di ko wax externe internet si ay xeetu site la sosoo voilà dina jàpp nit ba oyofal màndiwam moom site dina jàpp nit tamit ba buy sëy gaaw a dina jàpp nit tamit du roy walax ñaanam xam nga site bu matee li mu dox ci dereetu doomu aadama la bu fekkee ku góor la walax bi mën a tax mu am màndiw moom tamit day dox am ñaari bopp bi am benn bopp bu nu nag boroom xam-xam yi li may wax xam nan ko da koy sonal ba bu man ni moom génnee dem si soxnaam balaa moo àgg walax ñaan bi day nekk point faible ba soxna si mu mën a jàpp am te it day dem a dem ba day oyofal man day wàññi kàttanam moom sitit dina def loolu waaye si gàttal tamit nan xam ne bu ko jigéen amee ñu baal ñu si ndax wax boo ko leerul dëgg dëgg duñu ko mën a xam jigéen ñi nga xam ne dañuy sëy muy metti di sëy mu mel luy saf ñu baal ma bu nu sëyee ba nopp mu génnaat ñooñu nan xam ne sitti moo leen dal te bu leen yàlla dimbali wut pour ñu jàpp ëmb day jafe ndax sitti ba tàngoor wa moo koy dégaase ëmb bi du mën a jàpp bokkut ak nag ki nga xam ne day sëy du si mën a am bànneex du metti mais si mën a am bànneex loolu rab moo koy def fokk ñu leeral ko bu baax ñu mën koo xam yi ñuy wax nag yàlla mi dara taw dogal na ne suñ métier la lu nekk la nu jaral ñu jaar si fu ne ba yàlla dénkuñu ko ñu mën koo dindi si nit ba set leer daa ji ne am solo ba tey yéen a ngi bàyyi xel euh, seen Baol Média info euh, sëriñ maam Cheikh Ndiaye góor yàlla sëriñ maam Cheikh Ndiaye moom la ñu àndal tey jàmm sëriñ Fallou sëriñ maam Cheikh nee nga ci kàddu gi siti day yàq ëmb ba jàpp ëmb ndax siti dina fekk nit ko ëmb ba pare mu yàq ëmb bu am déet. waaw loolu du mën a nekk ndax li ko sab mooy siti moom bu fekkente ne bëri na sa biir ba nga xamante ne nii day tax maanaam doo jàpp ëmb doo mën a ëmb ba mu koy yàq. am na it site yoo xamante ne day yéeg di wàcc fokk it ñu leeral loolu site bi nga xam ne day yéeg di wàcc cooba rek suñu mën naa dogal kooku jàpp ëmb waaye bu doom yu juddoo diir bu gàtt balaa moo fet da gis bopp bi dina am ay picc lu mel ni siñ muy rocceeku du sofee dina ko dina lu mu koy dal lu mel ni bët yu xonq di wànneen ni mu koy dal dina bëri nga xam ne kii ndeysaan judd na ba mucc waaye it siti mi ngi si yaram bi bu fekkee waaw loo gis dafa am yoonu boppam bu fekkee dem naa dama dem romb fer nag mu nees naa am composement yoo xam ne da koy jël ba léegi am na yoo xam ne dañ ko koy sange ndax siti bu dépassé ba génn si po maanaam yaram da nga koy faj ci yaram bi du ko faj si biir mooy mën a tax mu dañ mi ngi mel ni émorite rek da nga koy jox lu muy naan di ko jox lu muy diw si suuf loolooy tax muy dañ bu ko defee euh, ñu bàyyi xel ne moom siti daanaka yaatu na yaatu goo xam ne moom rek daanaka man na émission daal waaw kay daal dinay am solo dañuy dugg ci ponk bu lëmba jamono bu jaaxal ñëpp muy cat léeg-léeg sax nit lu mu yaakaar mu tas mu ne catama topp wala léeg mu ne ci jafe-jafe jàpp ni cat moo ko topp cat moom ndax euh, sëriñ maam Cheikh des na ko faj am déet ak yéen tegtal nga ci am yow. waaw cat moom ku jàng alxuraan te gëstu su rawatina nga jàng addis di nga xam ne dafa am ndax yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam neewuma la sëriñ diw wala kenn yonante bi laa la wax. te li may wax boroom xam-xam boo xam ne xaw na ko jaaxal na dem si xaddisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daf ne bu fekkoon am na luy fànq programme yàlla suñu borom ci doomu aadama mu ne cat la yonent bi wax na ko si addis nga toppaat addis bi mu ne yàlla suñu borom li muy programme si nit cat rek moo ko mën a dindi kon loolu yonent bi moo du samay wax nag dama ne yonent bi moo ko wax ci addis yonent bi waxaan na si addis sama xeet wi ñu bëree bëree bëri lu mel euh, maanaam maanaam ay nangam million ngi nit cat moo leen di rey mooy waral ñuy gaaw a faatu ku wax yonent bi la nag du samay wax xam nga euh, yonent bi sa alayhi wa sallam boo jàngee bi ko cat jàppee ba nga xamante ne nii nekk nekk ay taab si moom ñu baal ñu waxin bu sonn lool ba daanaka dara mënatu ko si saayir xam na ne yàlla suñu borom si la wàcc saaru falaxi ak naas yi voilà aaya bu wàcc am benn fas fas bu dañ kon xam nga ne cat am na am na it fu muy léegoo si alxuraan lu bëree bëri bay tudd jinne di tudd it doomu aadama moom yonent bi xam ne am na bët yoo xam ne lu nu tegu làmmiñu tudd ko mun na noo yàqu moom ku ko ragaloon na moom yonent bi kon cat am na doomu aadama yi nag jàpp nañ ne daanaka liggéey moo gën a garaaw si doomu aadama wala xeex wala yu demee noonu naam loolu am na mun naa téye nit mais cat a gën a garaaw a gën waaye nag cat dañ koy dindi ba mu set wicc cat dañ koy simp ci nit comme dëkk si kàttanu yàlla ak mbaaxam waaye nag ma leeral la boo ko dindee si nit ba mu set wécc dafa am lu koy aar bon loolu leen koy jàppaat ndax nit kat lu mel ni cat rab danoo dëgër bopp dëgër bopp koo xamante ne nii boo ko dindee si nit te mu ñëw si maam Cheikh nga sangat ko cat mu dañ. sëriñ maam Cheikh dogguma la damay gis léeg-léeg ci kilifa yi sëriñ si ñu ni da ngay bind xaatim sax bala nga ko jox borom cat dugg ci mu yàqu léegi nga ne cat da koy dindi euh, ci nit ki seppi ko comme dëgg aar ko waaw si kàttanu yàlla ak mbaaxam xam nga dama ne la mhm. cat boo ko dindee si nit te amut lu ko aar cat da koy jàppaat dama ne na nit mun naa ñëw si maam Cheikh mu dindil ko cat ba mu set wicc muy dem këram balaa moo àggaat cat jàpp ko maanaam li nga wax dafa am benn borom xam-xam bu mag du ma wax turam nee na mbindu alxuraan sax wiir gi araf yu xoole yéex yéex xëcc yéeg tomb yi lépp ñëw moo ëpp solo nga bind ko ba ko gis ah, na mbind bi da rafet na na bu boobaa sax mën na yonent bi moo ko moo ko tudd amoon nit lu ko si daloon kon xam nga ne yàlla suñu borom seetaan ko si am na lu mu si alquran loo xam ne xaj na xanaa sa xam-xam bañ faa àgg waaye boo ko defee jëfandikoo ko bu fekkoon cat boo judduwaale la sax si kàttanu yàlla ak mbaaxam day dañ te ngi gën a lancé appel sama moroom yi sëriñ si nga xamante ne nii dañuy def wàllu ñaan xaj na sax ñu ëpp ma xam-xam waaye nit moom bëgg mu ubbeeku bëgg koo defal bayre te jiituloo cat bu am doole bu koy ah, def la trois yi rek mun naa jàpp ñu baal ma ndax loolu preuve bu leer nañ laa si am dinaa la si dolli tuuti léegi-léegi feebar yu garaaw yi neew ma dama koy faj ndax wax day leer mel ni ay ay saaru kiris yi nga xamante ne nii maanaam moom la ñuy woowee euh, lu mel ni ay euh, kii euh, ay xeeti junne may mun ak yooyu déedéet waxuma loolu loolu wàllu rab la mais li nga xamante ne nii maanaam saaru saaru kii la saaru tension tension bu yéeg wala tension bu wàcc waaw boo xamante ne dem na ba jàpp nit ki ba mu paralysé la yooyu léegi-léegi nit am ko ba du mën a wax wax ju set du mën a dox a ko am boo ñëwee si man ma la sangatu cat dëgg bu indi cat bu tamit lu si ëpp na dañ kon xam nga ne am na doole si doomu kon daal cat àgg na ci jox nit tension ba paralysé ko ba téye làmmiñam wala mu téye ay cëram tamit loolu sëriñ maam Cheikh euh, Ndiaye jaamu sëriñ Fallou daf koy faj kon woo leen ko ci numéro téléphone Euh, ci 76 297 287 76 38 76 287 76 38 wala nga woowaat ko ci 113 77 113 99 32 loolu yi sax mooy numéro whatsapp nga xam ni képp ku bëgg a jokkoo ak moom ci côté boobu euh, di nga ko ci mën a am euh, sëriñ ñu dugg ci ponk boo xam ni ponk bu jaxasoo la ponk bu ndaw ñi bëgg mu mën a mu laxasoo trop loraange muy bayre yan xeeti bayre moom ngay def bayre ubbiku wala bayre ee diw wala bayre jigéen wala bayre foo jaar ñu naan diw ma nga ne. waaw xam nga da ngaa wax wax ju am solo avant ñu dugg si loolu wàllu cat ndax damay bañ ñu jàpp ne. Hmm. dama ne faj paralysé. paralysé yàlla dogal na ne mënuma koo faj. dama ne. Hmm. ki nga xamante ne dafay amee tension mu dem ba jàpp ko mu paralysé dem ba jàpp ko wax ji mënatut a set. Hmm. am na si ñu bëri ñoo xam ne boo leen joxee sangatu cat lu bëree bëree bëree bëri dina wàññeeku si ñoom mais du caaginu na man dama dama toog na damay faj paralysé mënuma koo faj waaye cat moom képp kum dal si kàttanu yàlla ak mbaaxam boo ñëwee ma dind ko bam mu set wécc hmm. jox la it lu la aar ba cat nga mun see mucc ak wàllu seytaane insha allah ah, ci ñëwal ci bayra bi voilà moom nekk na lu jaxase xelee xalaat yi waaw bayre dafa nekk loo xamante ne tur yu moo siiw waaye lu jafe la hmm. bayre maanaam defal nit bayre lu jafe la hmm. dafa am ay yooni boppam am na nit ñoo xamante nii da nga leen di defal bayre si wàllu njaay mi nuy jaay loolu nag daa bari ay façon ndax alxuraan def na nax fu baax dalkat yi loo gis lu nekk njëriñ la ma nga sa ginnaaw coona am na ñoo xamante ne bu nuy jaay man bu ñëwee si man mun naa leen defal njarate boo xamante ne ni ku ñëw sa morom dem fun xëyee it incha allahu rabbi dinañ soqeeku te dinañ ubbeeku mais bayra dëkk boo xamante ne mbooloo dafay daje ñuy xat-xatloo nag loolu dafa am lu muy laaj te am la te lu am la lu wér la tey dama koy def si kàttanu yàlla ak mbaaxam mhm. bokkut ak bayra jaayu foo jaar ñu ne ma nga nee voilà yooyu tamit daanaka euh, booy seet euh, bayra boo xamante ne ni bu ànd ak ubbeeku la lu mel ni xam suñ xaaf moo koy ëpp doole si doomu aadama mhm. fa saw tur àgg sa bay maanaam sa wërsëg àgg fa loolooy yëpp doole loolu incha allah. Mhm. day am bayre Euh, moo xam muy bu jigéen wala muy comme Bara Ndiaye moroom naataangoom bu mu dendal Ndiaye moom fekk jeexalut kenn du xool keneen wala lu waaye amit rek làmmeñ yi saf ci làmmeñ yi daal ndax Bara da ngay defee ko nit wala da nga ko aar ba ko jëfal Bara waaw xam nga nga xamante ne li muy def xam na ko nit du ñëw si moom mukk wut bayra xam nga bayra dëgg sax day am laytaay laytaay bi mooy dafa am tey si misaal sangat boo xam ne guddi nga koy laal boo xëyee suba laal bayra bi ubbeeku bi nga xamante ne ndax bayra da ngay ñodd lu nekk ñëw ndax nga mën a mucc bayra moom bu àndut ak kaaraange borom du dem ndax euh, nit moom balaa ngaa yóotu fa nga taxaw na dëgër voilà. damay gis ah, ñu ni bayre dafa am ay niveau borom 20 ans 40 ans ba 70 ans ndax léeg-léeg nit du ñëw sax gaaw nga pour mu bëgg a siiwaa ngi gi dal ko rek mu liggéeyloo ko bayre boo xam ne du asam boo xam ne dina ko attan. waa xam nga dama laa wax ne la bayre dafa bëri ay façon te nit nga xam bëgg nga leeral façon yi ndax nit ñi mën ko ràññee la xam ko ndax boo bëggee siiw ba ni ña ma xam mën nga ñëw rek ñu defal la bayre boo xam ni ah, doo ko fekkee. waa xam nga doomu aadama lépp lu muy def li mu war a njëkk xam mooy xam doomu aadama ba noppi am maîtrise ci doomu aadama yi doomu aadama bu ñëw benn xool képp bu ko defee mën a xam kii mooy kan mhm. man mii di wax ak yow ab taalibe laa di ab jaam-jaamaat mais dinaay toll foo xamante ne ni listixaar sax dinaa koy faral di def mhm. waaye léegi-léegi nit damay woore ma mun koo wax léppam léegi-léegi nit day ñëw ma mun koo wax la ko yëkkati mhm. nekkul nag chaque jour lay ñëw ci man luy ñëw ak a dem la dinaay toll foo xam ne ni it boo ñëwee fokk ma defal la listixaar di mën a xam say mbir dinaay toll foo xam ne it boo mu wooyee a la wax dëgg yàlla foog nga mu ñëw ba beneen yoon ndax wax day leer mais bayre dafa am am ngoo xamante ne foo ko takk passé na ko nit bu demee ba romb 18 ans am ay 20 ans maanaam bu fekkee am na kaaraange dëgg mën nga koo defal loo xam ne borom 40 ans koy am. da koy dina mën a gàddu. bu baax bu baax a baax loolu la koy sabab mooy kaaraange ga. la koy sabab mooy ka koy defal moo xam la mu koy defal. ndax nit ku ne boo taxawalee aw turam am na turu yàlla wu mu lay jox. Mhm. mais boo taxawalee aw turam am na rawxaan bu mu àndal. lu mel ni ndox lu mel ni ngelaw lu mel ni leer safara mhm. hmm, lu mel ni suuf mhm. yooyu yëpp doomu aadama boo gis rek am na yu muy àndal yu demee noonu mhm. nga xamante ne am na ñoo xamante ne ni euh, boo seetee ba si biir il faut boo xoolee seen i mbir nga xam ne ñii nii ak nii ak nii laa mën a jaar ak ñoom ngir liñ bëgg ñu am ko daañu ne am solo sëñ maam sax njëkkante ak waxtu yi ndax euh, ñu ngi xam ni waxtu yi sax li si bëreetut waaye dañ ñëw ci xalwa uh-huh. sëñ maam sax day dugg xalwa ak ñan ak ñoom ngay dugal xalwa wala du ñëpp rek ngay tànn pour dugal leen xalwa non wax dëgg yàlla du ñëpp la ñuy tànn dugal xalwa ndax wax day leer xalwa moom li ëpp ñu nekk bitim réew lañ koy defal wala kilifa yi nga xamante ne sunu waajur Cheikh Alassane Ndiaye góor yàlla daanaa leen ko daana leen ko defal ñuy ay kilifa yu mag te yàlla dogal mu doon mag yàlla na ko yàlla doolee sàmm waaye toogaay bi ak yooyu dootu ko mën na xalwa day laaj ay mbir bu baax xalwa moom day mel ni tey nit ki nga xamante ne ni dafa ñëw ñu téye ko ne kii mënatuñ koo bàyyi dañ koy jàpp sàmp koy biteel mhm. dañ koy jàpp ba li nekk si moom dañ xalwa dëgg boo ko duggalee nit balaa ngaa génn aajo jo fañu tey kuy dugg si projet bu am doole bëgg gañe ab projet bu am doole maa nga nekk koo xamante ne nii maanaam dangaa nekk euh, borom daraja mala mm-hmm. nga nekk koo xamante ne nii ah yàlla dogal na xëj na taxut nga siiw noonu waaye sa doole matt na ko nga bëgg a def xalwa nga xam na ay fan lay laaj mm-hmm. voilà nga jël turu ndeyam jël turu baayam adat ko ba xam fan la tollool ban turu yàlla lay méngool poids nu mu toll nga sikkar ko ba ba xam rawaanam fan la féete xam ba heure nga koy def li nga koy def xalwa ay mbir la yoo xamante ne ku ko xamul dëgg-dëgg sax munoo koo leeral xalwa du ay caaxaan ñi ma koy séqal baaw bitim réew nag ñooy ëpp ñi ma koy séqal si biir réew mi teew tamit dinaa koy séqal si biir réew mi ay nit waaye moom yàlla suñu borom may nañu si daanaka sax suñu liggéey xalwa la gën a ëpp doole incha allah daañu ne am solo ndaw yëpp jamono bi tamit li ñu dëd man teg ko seen i mooy teranga muy teranga àdduna wàllum loolu tamit da nga ci yëngu bu baax a baax a baax ba ñu xam ne yow euh, macha allah ci côté boobu noonu ana lan nga ci indi ci leeral ak ubbiku gi euh, nan lay demee ci sa côté ak ñi nga xam ñoom nga ko seqal. waa alxuraan bawul dara sëñ bi ubbeeku lu am la lu ama am la am na kilifa gu mag si yoonu murit koo xamante ne nii du ma wax turam daana wax naan xam ma ndaw lu gàtt wërsëg ndaw lu sangu laa xam. Mm-hmm. ubbeeku am na ñoo xamante ne nii maanaam gis nga sëñ bi si gàttal nit. Mm-hmm. munoo koo defal ay mbir doo ko xam. nit day mel ni code PIN boo xamante ni li fekk xamoo code ba pour nga tijj ko ba def sa la nga bëgg du mën a ne am na ñoo xam ne nii dañuy ñëw nga xool seeni mbir xam ne kii sarax képp moo mën a ubbi ay mbiram nga ne ko demal nga man nag sarax dama naan la demal nga defi sarax nangam jox la la ma lay jox ne la defe ko nangam ak nangam sangoo ko wala def ko nangam mhm. am na ñoo xam ne li fekk saraxewun seen yi mbir pour mu ubbeeku lu jafe lay doon am na ñoo xam ne nii it dafa am loo xamante ne dañ koy ginnaawal ba noppi di di wut ubbeeku wala bayre nee naa la cat wala rab ku nekk si yow surtout cat pour nga ubbeeku lu jafe lay doon pour nga dugg si mbir mu yëkkati ko lu jafe lay doon mhm. da ngay dind loola ba mu set nag bu boobaa loo ko jox rek dina am fatxu bu am doole boo xamante ne nii dina si mën a yëg boppam bu sooba yàlla euh, daji nay am solo xam naa rek njëkkantiwaat ak waxtu wi waaye képp koo xam ne bëgg nga jot sëriñ maam Cheikh euh, Ndiaye jaamu sëriñ Fallou mën nga ko woo ci numéro téléphone bi 77 732 25 25 77 732 25 25 wala 76 287 76 38 76 287 76 38 sëñ Maam Cheikh ñu mujjee tëjee ponk bi nga xam ne mooy nopp soxna. ñi nga xam ñi euh, dañu am soxna waaye seen soxna du mën a téye seen sër léeg-léeg yeneen xale yu góor topp ci ñoom loolu di commencé ca bañ koy ngoro ana loolu ban euh, saafara nga ci am goo xam ni am nga ci euh, ndimbal loo xam ni ñi lay bàyyi xel jamono bi tamit te di ko dund ñu mën a ñëw ci yow. waa xam nga saafara boobu moom jàpp naa ne lu ma tudd yenn xeetu rajo yu demee noonu jàpp naa ne ñi ni si xam bëri na si koy saafara ndax si kilifa lañ ko jëlee mhm. am na loo xam ne si gàttal. góor goo ko jox mu def ko mhm. wala nga dencal ko soxnaam moo xam mu nekk biirum réew wala bitim réew mhm. góor gu moom du ko mënal dara kum neex nga koy sikki sàkk mën nan la koo jox foo tiimee sa soxna doo doon góor su ko ko góor gi tiimee noppa ci naan doon góor loolu lu ñuy takk la wala lu ñuy sango loolu lu mu dal sëñ maam Cheikh euh, dee su ko mën a leer la xam nga man samay mbir daanaka sax sikkuma ñi nga xam dañuy teg ay bagage di teg ay mbindu xaatim di teg ay garab ay kii euh, ba sikkuma ko xañ na man darut sama abatit nax euh, ndax li nekk si dënd bi mi ngi fi te it lu nekk si deret ji la te lu wér lu wóor la loo xam ne nii ni deenan dekk di ko soog a am liggéeyal yàlla liggéeyal waaju baax ba mun koo am voilà waaye daal sib gàttal nit koo xam ne da ngaa bëgg aar sa soxna bu fekkee déggoon nañ si moo xam biirum réew wala bitim réew dinañ na si defal loo xam ne góor gu yow du ko bu ko bu tiimee du doon góor bu ko tiimee du góor tiimoon góor ko tiim doo loolu wér la am nan loo xam ne nii si gàttal ndaw lu ko def moo xam ngay góor di jigéen di nga dund ba dee te doo mooy suñu borom te alxuraan la te lu wér la te lu am solo la si jamono ji may wax ak yow voilà daa dina am solo xam naa sëriñ maam Cheikh jamono bi tembe ku la bëgg fekk fi nga nekk ci Touba ñaari pono ndax Touba ñaari pono rek nga nekk wala am nga yeneen lieu yoo xam ni yaa ngi fay nekk pour ñuy bàyyi xel émission bi waaw man nag yàlla dogal na sama cosaan daamaatu guy tukkulóor kër Cheikh Alassane Ndiaye góor yàlla waaye nekkuma foofa wax day leer du foofa laay faje yàlla suñu borom damaa dimbali ma am kër goo xamante ne daal daaray làmp laa ko tudde ma nga sa këtay maa nga sa kotoy domaine bu njëkk ba kotoy kër Cheikh Amar gi mm-hmm. sax si kanam noonu la ne foofu daalay làmp laa ko tuddee muy kër goo xam ne faj rek moo ko tax a jug voilà foofu daal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinañ ko gën a yaatal sax mm-hmm. foofu laay ëpp lu may ne ñaari yu bëree bëri bëri yu ma bëgg a def si ni dëgg-dëgg wala ma bëgg a wéeteek suñu borom foofu laay ne mm-hmm. ñaari pund dinaa fay faral di ne wala may faral di nekk looyeen mën a ñëw ci yow ña feete dubin ba mën a ñëw ci yow ña feete tamit euh, ñaari pono tamit ñëw ci yaw waaw li am solo ba am solo mooy balaa kenn jug di ñëw wala mu soxla ma rek na ma woo bu dee ku nekk bitim réew surtout ñu faral di nuyu sama mbokki taalibe yi nga xam ne France lan ne ñii nekk Amérique ñii nekk Allemagne ñii nekk Angleterre ñooñu ngi leen di sant bu baax ak ñi nekk Canada dañuy samay wëlëre de profitoo di wax ñi nga xamante ne yàlla suñu borom moo ma boole ak ñoom may seen jëwlin si yoon wi surtout maanaam sëriñ mhm. maa ngi leen di soññ si màggalu sëñ Bàmba gi naan ko daan doxe mhm. di profito yi di nuyu suñu buntu sëriñ Tuubaa muy sëriñ Abdou Salaam mhm. moom sëñ Sang Mbàkke moom sëriñ Muudu Balla Joor moom sëñ Balla Joor di nuyu xalifa bu màgg bu tedd boobu di sëñ yi noonu la ñuy nuyoo it ki nga xamante ne moom la yàlla jiital moom lan waroon a jiital sëriñ Muntaxa Mbàkke di nuyu sëriñ Seex Jëmb Fall ndax ñun ay Baay Fall la voilà euh, bu ko defee ñu xam Euh, doomu aadama moo matut waaye luñ dëngal wala luñ kii rek nan ñu ko jéggal ngir jëmmi sëriñ Saaliw waaye daal jug nañ pour li nga xamante ne nii maanaam suñ nonul bàyyi la jug nañ pour li nga xamante ne nii suñ deret la ni nga xam ne amuñu moom lu coow bëri bëri ak lu wax bëri bëri lool lan am te it jaral nañu lu ne te si lan ne ndax si la leen di tedd si la ñuy amee lu liggéeyale sëriñ Tuubaa kon duñ ko jaaxaan voilà am na solo euh, mu nekkoon seen site ak Moustapha Bassir ñu ngi fegg woon ak sëriñ Mame Cheikh Ndiaye jaamu sëriñ Fallou euh, innu sëriñ Alassane Ndiaye góor yàlla képp koo xam ne bëgg nga ko jot ci lii numéro téléphone rek ma nga def 77

innu sëriñ Alassane Ndiaye góor yàlla sëriñ maam Cheikh yaakaar naa waxtu wa xocc na jëm ci jeex lan ngay dénkaat askan rek ñu daal yëkkati li nga xam ne moo di jotaay bi loolu lay sant sëriñ Saliou bu baax te la moo nu yar def su ñun lu bëri neew ñu danoo jàngal am faj nag li mu def su ñun sax moo ëpp doole am faj maa ngi sant it samay soxna sama ñaari soxna yi ma suñu borom booleel nga xam ne dan maa muñal léegi léegi ma nekk si ay ittey doomu aadama lëlu barab ba may faje ay fan yu yàgg maa tey sant ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal liggéey bi muy wàllu faj di leen ñaan ñu gën koo rafetal gën koo yaatal kenn ku ne la la yàlla may nga yem sa la nga xamut nga ne xam ma ko wàññiwut dara ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaa jëfal ñëpp di wax jërëjëf sëriñ Bamba jaaraama Cheikh Ibrahima Fall barkeb sëriñ Fallu jërëjëf sëriñ Saliou jaa ngeen jëf. Ndeysaan kon woy leen di teg seen gët di dekk seen i nopp ci seen site euh, Baolmedias info lépp luy euh, kump rek foofu nga koy kump ko foofu lay kumpikoo foofu lay leeree ci wàllum cosaan ak aada ak actualité lu ma doon kon mbokk yi way leen di ci abonné bu baax a baax di bàyyi xel euh, seen site euh, Baol Média info jërë ngeen jëf jërë ngeen jaa ngeen jëfati lu jub nañ ko sant yàlla suñu borom waaye lu dëngin nañ xam ni matadi doomu aadama la wasalaamaaleykum wa rahmatullah